dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te abu abonné leen ngir dara bañ leen raw ñu nuyuwaat leen mbokk internet info 221 ñu àddu rek ci procès bi amoon diggante Mimi Touré ak Mansour fay tribunal bi daal dina joxe nag décision Aminata Touré mi nag toppee wuñ ko dara daal dinañ ko bàyyi am na ndam ci kaw kii di Mansour Faye fàttali buñ sukkandikoo ci xibaar yi duppee ci Seneweb nag tribunal bi dafa décider rek relaxer Aminata Touré maanaam bàyyi ko moom mi fi nekkoon élimaanu jëwriñ yi jamono président Macky Sall bi mu fi nekkoon Mansour Faye nag mi nga xamante ne dafa jëloon rek yóbbu Aminata si Touré

ci yoon ndaxte nag daf ko doon tuumal ne dafa bokk ci ñi lekk xaalis bi ñu dénkoon ngir askan wi 1000 euh, milliards de francs CFA jamono ji nga xamante ni mbas mi di Covid 19 mi ngi fi fàttali Mimi Touré jot na prononcé wu ci mauvaise gestion maanaam anam bi nga xamante ni noonu la Mansour Faye doon doxalee ak xaalis bu ñu leen joxoon bokk na ci ñi nga xam ne rek dañuy joxoñ baaraamu tuumal bi ñu sukkandikoo ci rapport ñii di waa Cour des comptes loolee waraloon nag nag Aminata Touré yëkkati yooyu kàddu te fu mu ko teg dafa leer waxoon na ko du daw ndax xam na ne li mu wax lu am la waral tey jii mu am ndam ci kaw kii di Mansour Faye te moom mi ngi xam ne rek ni pareegul tey la gën a naka wëyal ni xeex naka lépp loo xam ne gis na ko ci te mun na ko waxaat rek dina ko wax nag Mansour Faye naka tey jii daal dina ñàkk ñu waxtaanee leneen jëm rek ci nomination yi nga xamante ne jot nañ ko nemmeeku ni ki démb président de la république Bassirou Diomaye Faye dafa daal di fal nag ay rappeurs yi nga xamante ne siiw nañu lool di kilifa ak ki nga xamante rek moo di nit dof ñu bari naka jot ma Madiambal Diagne moom nag ñaari rapport yi di Mortala Gueye alias euh, Nit Dof ak Landine Messane euh, Seck nag moom ñu gën leen ràññee ñu doon ay ay rappeurs yoo xamante ni daal euh, président Bassirou Diomaye Faye defar na leen loo xamante mosu fi am ci réew mi conseil des ministres niki démb jot na leen fal président maanaam njiital euh, conseil d' administration bu fonds ak développement ci wàllum aada ak cosaan euh, keneen ki nag ñu daal di ko fal rek mu nekk tamit njiital conseil administration bu grand théâtre national Daniel grand théâtre national du Coumba Ndiaye euh, Rose na bu ñu sukkandikoo ci jambal Diagne ñaari rapport yi nga xamante ne jot nañ leen rek may jox ay postu maanaam seeni récompense la ndax ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne liggéeyal nañu Diomaye ak Sonko ci seen xeex bi ngir ñu mun a falu doon tey jii Euh, ab bopp ci kaw biir réew mi ci naka noonu sax nag mu ngi joxe ne ci kaddu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2024 jox na nag indiwaat jaar jaaru ñaari rappeurs yi nga xamante ni seen formation dafa jaar ci yoon waaye itam nekk na ñoo xamante ni bokk nañ ci militant yu gën a takku ñi nga xamante ne boo gisee coppite daal di am fii bokk na ci ñaan ñi kon nag ñu leen defal xëy na nekk na loo xamante ni dañ ko mérito ak lépp lu ñu ci mën a wax di ay kaddu kàddu Madiambal Diagne réaction yi mi ngi bari ci jëm rek nag ci wàllu muuru bi nga xamante ne jur na coow jamono jii Euh, ki ci mujju àddu rek di Mame Matar Gueye moom nag jot na si joxe xalaatam buñ sukkandikoo ci moom mii rek jot na xam ne ne position pro islamique la waaye itam joxe na xalaatam ci kàddu ak polémique bi jëm ci wàllu muur bi ci école catholique yi mu doon ay kàddu yoo xamante ne sax suñu naataango Les Échos jot na ko fa fësal moom vice président bu ONG Jamra jot na rek ne faw ñu indi table ronde toog waxtaan rek ci yenn kenn ku ne rek daal di joxe xalaatam loolu moo gën coow ji nga xamante ne sos na diggante eglise église bi ak la ca àddu ci noonu sax moom Mame Matar Gueye gis na ne ni coow sawaru waru ci juddu ndaxte nag lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon respecté li nga xam ne moom moo fi nekk buñ sukkandikoo ci moom mi jot na sax nag joxoñ baaraamu tuumal ñenn ci jullit ñi nga xamante ne daanaka sax ñoom ñu ngi doon yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci ñu waa jàngu ji te loolu sax nag mën indi coow donc nañ ko moytandiku te fexe lépp lu am coow rek ñu seet naka la ñuy def rek ngir mën a indi jàmm ndax jàmm jooju lañ fi yàgg sàkku di ay kàddu ki nga xamante ne rek moo di Mame Matar Gueye mbokk internet info 221 wàllum xibaar ba tey jii rek ñu àddu wax ci njiité réew mi Bassirou Diomaye fay moom nag dafa bind ab bataaxal kii di ki nga xamante ne rek mooy njiital euh, fale ci Arabie Saoudite di roi Salman marito ñaan nag mi nga xamante ne moom moo nekk ci wetam moom mooy yóbbu nag bilee bataaxal jébbal ko ko njiitalu euh, Arabie Saoudite président de la République Bassirou Diomaye fay nag bind na ab bataaxal jagleel ko buuru Salman bu Arabie Saoudite nag moom directeur de cabinet di mari Diop Niane moom moo ko daal di jëlee Sénégal yóbbu ko ba fa nga xamante ne rek moo di arab Arabie Saoudite mi sukkandikoo ci bés bi le jour ne na chef d'état bu Sénégal mi ngi doon expliquer yenn ci ay raisons yi waral rek nag mu daal di bind bataaxal bi waaye tamit li tax mu dal di dàkkal contrat bi nga xamante ne waroon nag ko seq ak état Arabie Saoudite lu toll ci quatre cent cinquante neuf milliards de francs CFA nga xamante ne dañ ko jagleloon groupe saoudien bi bu tuddee Aqua pour ngir ci usine boo xamante ni dafay sekk ndoxu géej gi def ko rek nag mu nekk ndox boo xamante ni dinañ ko mun a naan ñu d'accordoon ci sax nag mu mujjanteel bi am lu ci laxasu ba tax rek nag ki fi nekkoon jiit nag président Macky Sall moo doo signé woon accord yooyee ñeenti fan rek laata mu ñu jeexal mandaam yëkkati woon nañ ci nag ab coow juddu woon na ci moo war a rek nag jiite réew bu bees bi di Bassirou Diomaye Faye comme xamul nu mu demee te gis na ci ne jot na ci am ay jafe-jafe li gën nag balaa muy rompre contrat bi mu bind ba daaxal jébbal ko buu bi saoudite expliqué lan moo tax la ñu dàkkal loolee bu ko defee rek ñu seet ci ab leneen accord yoo xamante ne daañu ko mën a signé diggante Sénégal ak Arabie saoudite Mary Teuw Niane moom la ñu daal di yónni mu fas yéene jébbal bi nga xamante ne mooy bataaxal bi ki nga xam ne mooy ministre bu ñu dénk wàllum environnement ndox ak assainissement ak lu jëm ci mbéy fa nga xamante ne mooy Arabie saoudite wax rek ci leneen jëm ci nomination yu yees yi gis nañu démb coppite ak fal yu yees yoo xam ne rek jot nañ ko nemmeeku njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ni ki conseil des ministres ni ki démb ci àllarba bi juróom-ñaari fan ci weeru août nag réunion la boo xamante ne jot na ci falaat ñu bëri ñoo xamante ne toog nañ ci bokk na ci madame Ndeye Xansu euh, euh, euh, Camara moom nag magistrat la jot nañ ko fal mu nekk directrice njiital action normative ak lu remplacé moom remplacé ki nga xamante rek mooy Abdou Amadou Mbow madame de Khanshoum Camara moom magistrat la nag doj nañ ko fan mu nekk directeur bu Action Normandie moom moo wutu ki nga xamante rek mooy Amadou euh, Ngom beneen nomination tamit jot nañ ko nemmeeku ci biir gi ndaxte nag ay bopp yu yées lañu gis ku mel ni euh, changement daal di am nag ci activiste yi di kilifa nit dof ñoom ñëpp nag jox nañ leen ab poste conseil des ministres ni ki démb njiite réew mi Bassirou Diomaye Faye def na ñaari nomination yoo xamante ne daal ràññeeku na bu baax a ci wàllum aada ak cosaan ñaari artistes yi di kilifa ak nit dof nit dof euh, jot nañ leen a jox nag ab poste yu takku ci boppu foofee ci landing besaan ak Seck Mor Talla Gueye ak ki nga xamante ne rek moo di jox nañu ay poste yu kawe Mor Talla Gueye nag di artiste entrepreneur jot nañ ko fal mu nekk président bu conseil administration lu jëm ci wàllum fonds ak développement culture urbain noonu lañ ko ci wetu ministère bi ñu dénk wàllum ndaw yi tàggat yaram aada ak cosaan Moustapha Dieng moom it dañ koy woo mu nekk ci yeneen nag fonction ki nga xamante ne rek moo di Landing Mbessane Seck mu nekk artiste cofondateur bu groupe kër gi fale ca Kaolack moom it ca teg nañ ko ca bopp conseil administration bu Grand Théâtre National moo fa wutu ki nga xamante rek mooy Ameth Ndiaye euh, waaye itam euh, ci seen i fonction jot nañ ci ràññee daal mu doon nomination yoo xamante ni euh, Sénégalais yi nag rafetlu nañ ko ci gàttal ndaxte nag loolee dina tax ñoom ñu wàññi sax yenn ci fitna yi